wa dallat alriqaabu li azamati wa dakdakati aljibalu li haybati wa sabaxa alraadu bihamdi walmalaika min qiifati allahuma bi asmaika albahiyati walchicaati alarchiyati walkalimati alrabbaniyati wa talaasimi alabraaniyati wal aqsaami almalakutiyati wal asraari saryaaniyati wa tasaabihi lyunaaniyati ilahi bi rafici samaai wa quwati al ardi wa haybati shams wa bi sirri al acdami alladi bayna adulmati wannuur yaa man kasaa quluubu alcaarifina min nuuri al uluhiya wa yaa man arsala riyaaxa nushran bayna yaday rahmati ilahi salli ala sayidina muhammad salaatan taftax lana biha abwaab arrida ilahi wa taysir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 bëgg lu ñu indil seeni njaboot yàlla leen ko yàlla yombalal mbokk yi ginnaaw buñ leen ziyaara ngi dellu di ñaan sunum réew yàlla fi yàlla def jàmm ñu ngi dellu siwaat mbokk yi di ñaan sunu Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm coronavirus bi nga xam ne bi moo jaaxal ñëpp yàlla ñu ko yàlla dàqal waaye eh, dañuy wax ne rek mbokk yi yàlla de dafay sopp jaam bu jaaxle wëlbatiku ci moom kon mbokk yi nañu boole suñu doole imaam yaa ngi ñaan yàlla yaa ngi ñaan gaañu baax ñaa ngi ñaan ñun ñëpp ñu boole suñu doole dégg ko yàlla tàllal suñuy loxo yàlla yàlla nañu ko saafaraal te xam ne it nañu am yaqin ci ne yàlla dina ko fi jëlee incha allah waaye bala ñuy sori it dinañ leen bàyyil lu am solo ci tut tànk yi mbokk yi mag sax mën naa bàyyi xel lu bari waaye xale dafa doy waar ñuy ñaan fu waay mën a ne ak ci loo mën a nekk nga fexe def fatiha benn yoon ayatul kursi ñeen fukk laqad jaakum ñeen fukk wa samaai wa taarix ñeent fukk salaatu ala nabi boo ci mën a teg ci ba nga gën a mokkal ñeent fukk ngeen ëf ko ci ndox zam-zam jox ko xale yi ñu di ko naan yàlla ci mbaaxam mën naa sàmm tuut tànk yi ba jàngoro ju mag yi du leen dal waxataa bu dee magit fa kazalika naka noonu am na solo ndax ñun ñëpp dañoo war a boole suñuy dooleeg suñuy kàttan lu waay xam te man ko ñu dajale ko xeex feebar bi te dañu ko xeex inchaa allahu am nañu yaqin ni wa xaal ci yàlla dina ko fi jële eh, nañu dalal sunu xel te xam ne inna allaha ala kulli cheyin qadir wa huwa samiun alim almuhitu bi kulli chey nga xam ni moo peeg lépp te dara peegu ko dinañu ko fi jëleel bi ahsanil wujuh mbokk yi ñi baamtuwaat ko wut leen ndoxu zamzam ñeen fukk ayatul kursi yi laqad jaakum ñeen fukk wasamaay wa taarix ñeen fukk salaatu ala nabi ñeen fukk ñi fexe gone yëpp di ci naan ndax ni nit ki di naanee comprimé noon la war a di jëfandikoo turu yàlla ci yaramam ci wàllu ñaan ci wàllu di ko naan am na solo ndax ayatul kursi yi nuurun ndax qad jaakum nuurun wa samaay wa taarix kazalika nuurun leer yi yëpp tase ci yaramu nit nag jàpp leen ni dina fa def lu rëy alxijaabul akbar inda allahi huwa addua protection bi gën a rëy ci protection yi ci diine mooy la ñu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy addua u silahul mumin ñaan daal mooy ngànnaay julit ñu ngi ñaan tàllal suñu loxo nag rabbu samawati wal ardi naan ko yaa rabbi yow sunu borom axrijna min hada taab wal mashaqata wa diqi shadid wa axrijna min hada al marad al xatir wa ma dalika alayka ya ilahi bi aziz yàlla nañu ko yàlla defal mbokk yi defal ko adduna bi yëpp defal ko waa réew mi yëpp incha allah ñu fas yéene nag dellu si ak yéen fi barnaamijikum tafsirul axlaam fi kulli yawmil jumaa wa nahnu ala kulli xaal fi intizaarikum bi haadayn arraqmayn inchaa allah ida tasaltum bina sa tajidunana xaadiran kal aada mbokk yi ñu ànd ak yéen ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 ci ñi nga xam ne ñi dañuy ànd ak ñun saasu ne ci waxtu wi yónnee seeni bataaxal bëgg ñu indi ci ay leeral euh, su ko defee dañuy ñëw ci bataaxal bu njëkk bi nga xam ne fekk nañ ko fi en la kulli xaal Euh, mbokk mi yónnee ko di ko laaj muy euh, ñu jël ko ci ligne bi te ñëw salaam. sëñ bi ñu lay ziar. yàlla yàlla na nga ko ziar bisimilah. Euh, dama am benn gént mooy laajte. waaw. ma gént sama patron bi may liggéeyal. sa patron. waaw bi may liggéeyal. Mm-hmm. léegi mu xaay suba teel jox ma ataaya ma naan ataaya xel kat ataaya jox ma naan. ma xel ataaya jox la. waaw ma naan. Mm-hmm. léegi bi ma paree mun ma kaay ubbi boutique bi nga ñëw jaay client yi. Mhm. léegi bi ma ubbee boutique rek gis ñaari porte yi si kanam ñu ngi ubbeeku te fekk ubbiwuma ko. Mhm. léegi après ma gis euh, client yi waroon jaay di paas ay militaire la ay militaire benn oto militaire. Mhm. léegi après euh, ñooñu ne xaw ma jaay naa wala jaayuma leen. léegi beneen sareet laa gis mu ngi taxaw ñu koy yebal ngooñ ngooñ lañ ko doon yebal di ko sarfe ngooñ beneen sareet sareet fas bu xonq oto bi ay militaire ñoo ci nekk. waaw ay militaire ñoo ci nekk. Mm-hmm. léegi bu oto bi weesoo benn saret moo taxaw euh, ñu koy yebal ngooñ ngooñ ngooñ lañ ko doon yebal si kaw saret bi. Mm-hmm. waaw léegi yëpp ba si kanam bi commencé fas bi commencé dem fas bi commencé dem ma dem pour di ko jàpp mais jotuma ko. kan moo commencé dem fas bi. waaw fas bi dafa commencé dem waaw dafa dem yoonam léegi man maa ngi demoon pour jàpp fas bi mais jotuma fas bi si la dem. Mm-hmm. waaw foofu daal di si waay yeewoo. baax na. waaw ah, incha allah baax na jërëjëf waay. jërëjëf. 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 04 05 wala 88 628 euh, ñu yëg keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. naam. ñu leen di ziara. alhamdulilah dafa am ñaari gént yu ma bëggoon laajte. waaw bisimilah. benn bi da mooy gént ñu may takk te man sëy naa bu yàgg. lu mel ni. damay gént ñu may takkaat ñu may amaat. ah ngay gént ñu lay takkaat. boobu mm-hmm. beneen bi dama gént dama mës a gént leen bi daal di tëdd. Ah, allo nga ne beneen bi. dama gént gilleem nekk ci kaw asamaan bi gilleem. jinne. gilleem gilleem samo. ah gilleem. waaw gilleem. Mm-hmm. léegi foofu leer naa leer naa ci kaw asamaan bi ba leer boobu wàcc ba dugg sama biir néeg maa ngi naan sama borom kër waa fi gilleem bi tëdd nii moo leer ba leeral sama néeg bi nii mu ne ma waaw. Mm-hmm. léegi gént boobu jaaxal ma trop nag. Mm-hmm. waaw leer gi daal jóge ci kaw asamaan ba dugg sama biir néeg maa ngi naan sama borom kër. leer leer bi nekk si euh, gilleem bi teg si kaw asamaan bi moo wàcc ba sama biir nekk nii mu ne ma war. Mm-hmm. loolu daal laa doon jëm laa doon laajte papa jërëjëf. Mm-hmm. waaw jërëjëf merci. jërëjëf dinañ ci ñëw léegi incha allah. incha allah merci beaucoup. jërëjëf. Eh, shukran nahnu fi intizaarikum hatta al aan 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 salaamaaleykum. maaleykum salaam. mbokk mi ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi delloo ziar si biir naka tey. ñu fi sant yàlla. alhamdulilah. man de ay fan yu yàgg ci ginnaaw dama géntoon Serigne Saliou Mbacke. Mm-hmm. waaw ñi ngi nekkoon ma nga fekkoon xel koom. Mm-hmm. waaw jamono Ablaye Wade la woon nag ma ñëw mais damaa fekk groupe yu bëri ay am mbooloo daal. Mm-hmm. waaw ma ñëwee mu mu ñëwbil ma xàllal ma yoon bi ma dugg ma duggee mu ne Abdoulaye Wade ma puus ma toog mu jox ma ay mandarin. ku la jox mandarin. sëñ Saliou Mbacké. Mm-hmm. waaw léegi bi ma ko bi ma ko jëfandikoo nag bi ma ci xewloo ba pare damaa doon pour ay xewal daal dama doon jooy ci jooy yi nag may yeewu ma tëddoon nag su ma toog sama bët yaa ngi tooy xepp ci ci gént la waaye ma yeewoo rangooñ yi génn na daal. Mm-hmm. waaw moom bëggoon na xam loolu lu mu doon nag. dañ ci ñëw léegi incha allah. waaw incha allah. jërëjëf. jërëjëf. jërëjëf. 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 ما زلنا حتى الآن في انتظاركم كالعادة بدقة وسرور إذا اتصلتم حالا إذا اتصلتم بنا حالا بهذين الرقمين إن شاء الله mbokk yi ñu ngi leen di bàyyi xel ci ñaari numéro yi léegi bu ngeen wootee rek di ngeen ñu jot léegi incha allah ñu mën a ànd ak yéen balaa ñuy dugg ci bataaxal yi nga xam ne fekk nañ ko fi seeni borom yónnee ko di ko laaj incha allah ñu fas yéene ànd ak yéen euh, ñu jël ci ligne bi salaamaaleykum. allo. waaw mbokk mi ñu ngi lay ziar. allo. Ah, waaleykum salaam wa dama bëggoon a laaj. ci gént yi. Mm-hmm. waaw man de damay def bu ma daaw dama amoon borom kër mu nelaw. li ma li ba summi nag may gént ci biir gént yi ak avant may summi. Mm-hmm. may gént daal yu réer. Mm-hmm. waaw. sa sa daal yi réer allo. Ah, waaw sa dàll moo waaw ma ma gént dàll yu rek. Mm-hmm. waaw ay yoon ma gént dàll yu mm-hmm. waaw dama ko doon gént ay baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah. waaw. waaw jërëjëf. 88 628 04 05 wala 88 600. 28 65 65 dinañ ci ñëw léegi allo waaw ñu ngi leen di xaar ci ligne bi léegi xaalan ما زلنا حتى الآن في انتظاركم كالعادة بهذين الرقمين إن شاء الله 88 628 0405 ولا 88 628 65 65 waaw xam ñu ñëw ci bataaxal yi nga xam ne yi mbokk mi nekk bitim réew yónnee na ko fi di laaj bayaan bi bëgg ñu indi ci ay leeral ala kulli xaal ñu war ci ñëw li ñi jël ki ci ligne bi salaamaaleykum allo allo waaw bu ñu wootee ñu wàññi télé rek ndax dég dég bi gën a neex ala kulli xaal euh, ñi ñëw fi ñu toll woon léegi ak mbokk mi nga xam ne dafa yónnee ne dafa gént ñi di ko may soow mu di ko naan ne nag soow mi daal bari na lool mu laaj ma bayaanu zalika shurbul labani fil xulmi allo euh, soxna si bismillah waa waa bismillah waaw man damaa gént léegi ba ma géntee. Hmm. léegi man ma nekk euh, fii di jëm Touba. nga dem nga nekk. man dam damay damaa demoon benn kii day ma gént léegi di dem Touba léegi man ba may dem Touba si mbaar laa yéeg. si mbaar. di gént di dem Touba. waaw ci lan nga yéeg. si mbaar laa yéeg. oto mbaar. Mm-hmm. waaw. loolu rek laa laajte. <coughs> dinañ ci ñëw léegi incha allah. si mbaar. baax incha allah jërëjëf. Eh, mi ngi noonu 88 628 04 05 wala 88 ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum soxna si bisimilah. man de dama doon laajte damaa géntoon ñu may ñu ñu may tëni. ñu lay. tëni tëni. ñu lay. dama doon tëni ci gént gi. ah tëni. waaw. waaw uh-huh. ah, ma bëggoon loolu nag la. dinañ ci ñëw léegi incha allah. dinañ ci ñëw xaalan xaalan incha allah. 88 628 ñu jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum. allo waaw dina àndaat ak ñun mazil na xata fi intizaarikum mbokk yi mën ngeen ànd ñun ci ci wa rahmatullah mbokk mi bismillah allo allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Ah, ça va sëñ bi. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. da nga am jàmm. alhamdulilah man de damaa def benn gent. Hmm. Hmm. damaa gent euh, benn jour moo doon toog ci biir jàkk bi man ak sama mag. Hmm. ma gent ni sama jabar dafa gaañoon ci biir gànt bi mais dafa gaañoon bu yàgg. léegi ci biir gént bi mooy toog ak sama mag bi rek mu rab mu fàttalil ma sama jabar ma nekk foofu di jooy di jooy jooy yu métti. sa sa jabar mag la wala sa jabar. ah. sa jabar mag. sama jabar bopp. Mm-hmm. voilà ci biir gént mooy jooy jooy yu métti mooy yow gis rongoñ ci sama kanam ba xaw a tiit tuuti. Mm-hmm. moo tax ma bëgg am dinañ ci ñëw léegi incha allah dinañ ci ñëw léegi ci kanam tuuti 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 mbokk yi ngeen mën a ànd ci numéro yi ñu tudd léegi xaala ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. subhaana def. sant yàlla. allo. man de dama gëntoon. Hmm. sama yaay gaa ñoom ñun suñu koy denc. Mm-hmm. ana moom moom mi ngi dund. mu ngi dund. Mm-hmm. waaw mu ngi dund waaw. Mm-hmm. kon léegi après ma jékki-jékki waat géntaat sama benn wujju yaay. mu gaañu. sa wujju yaay mu gaañu. gaañu woon na bu yàgg nag. Mm-hmm. waaw daañu woon na bu yàgg nag. Mm-hmm. léegi après koy euh, dencaat. Mm-hmm. waaw foofu daal laa gént après ma yeew. waaye koy dencaat ci même bi. waaw foofu laa laa yeewu waate. dinañ si ñëw léegi incha allah. d'accord jërëjëf. jërëjëf shukran mbokk yi nashkurukum gaayata shukri li xusni mutaabaatikum maana uh, fi kulli yawmi al-jum'a fi barnaamijikum tafsirul axlaam bi haadayni raqmayn uh, ñu di leen di xaar ci 88 628 14 14 ñu jël ko ci ligne bi salaamaaleykum. <coughs> waaw mbokk mi ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar. Mhm, bisimilah. waaw ah, dama mën. Hmm? allo. Euh, maa al asaf euh, dina ñëwaat xaj na ci kanam tuuti euh, ñu ngi koy bàyyiwaat xel fil haatifi 88 628 allo. waaw. allo. waaw soxna si noo def. waaw allo. waaw bismillah. allo waaw ñu ngi lay dégg. waaw kay yow foofu firi gént la. waaw. waaw dama amoon gént bu may laaj. waaw bisimilah. waaw dama doon gént di laajte dama am gént yu ma doon laaj. waaw ñu ngi lay déglu. waaw dama doon gént di gis ay jën rek ay jën di di jën yu bari rek di ko gis. ak mhm. di fóot fóot mu bari ak guddi. Mhm. waaw. Mhm. may laaj ba xam. baax na. dinañ ci ñëw léegi incha allah. nee dinañ ci ñëw léegi incha allah. Mhm. Eh, mi ngi noonu 88 628 eh, ñi ñëw ci bataaxal yi nga xam ne fekk nañ ko fii seeni borom di ko laaj bëgg ñuy indi ci ay bayaanaat incha allah sanaati bi haula ila axlaami xaalaan mbokk yi kii nee na dafa gént gént ku ko jaaxal muy laaj ma bayaanu zalik mbokk mi neen dafa gént eh, ki nga xam ni kii mooy ki muy liggéeyal di nekk seefam ci liggéey bi mu xelli attaaya jox ko mu naan boobu mooy laaj bu njëkk bi shurbu shaay fil xulmi xayrun wa yusrun ala kulli xaal naan attaaya baax na ñu xelli ataay jox la nga naan xayrun euh, lu lu bon lu baax la ala kulli xaal boobu mooy laaj bu njëkk bi beneen bi nee dafa gént mu digal ko amarahu bi an yaftaxa dukkaan fa wajada anna dukkaan futixa min qablu qabla ma jiihi da ko digal mu dem ubbi bitig bi mu muy ñëw di ubbi bitig bi fekk ubbi nañ ko bu yàgg fa taajaba bi zalik euh, bitig mbokk yi soo ko amee nga ñëw di ko tijji fekk ñi tijji ko ba pare place bi baax na bitik bi baax na loo fa gën a yàgg mu gën a baax ci yow te xayrun ah, xayraat yiw yi bari dina la fa fekk ci palaas bi am na solo wa bayaanu addukaan allazi futiha qabla an yaftaxahu saaxibuhu nañ ci bàyyi xel beneen bi ci tegu mbokk yi neen dafa gént eh, oto boo xam ne ay soldaar ñoo ci nekk soldaar nag ida kunna natakallamu an il jundiyin aw il jundiyi laa bil insaani bi nafsihi lakin natakallam an il sawbi du ñu wax ci militaire en tant que militaire déedéet tëni bi wax bayaan bi mooy tëni bi tëni fi fil xulmi dafay indi xat-xat ci am amu doomu aadama wërsëg bi day bari sooxe sooxe yenn saa yi nga yaakaar mu tas yenn saa yi nga yóotu mu yéex a ñëw yenn saa yi nga am ay xat-xat yu xaw a euh, doy waar mooy ki nga xam ne ki yaxlum dafay gént soldaar bu sol tëni wala yi mel noonu bi baaxul nag mooy al arabatu nafsul araba al araba euh, allati fiha usbun yaabis maa fi l arabati xayrun wa maa fi l usbil yaabisi xayrun saret baaxul ci jafe-jafe yi tar yi gën a yi mag ci la bokk ñax mu wow nag baaxul ñax mu tooy moo ko gën fuuf ci gént kon mbokk yi nañ ci bàyyi xel waaye nag isa ja ana euh, diqun shadid aw suubat adida ay xat-xat bu ñu dikkalee wax nañ ko dinañ ko waxaat dee leen bàyyi xel ixraajul xamxi wa zurrati génne mboq ak dugub bu ci nekk ñaari kilo mboq góor dugub jigéen ñu jàng ci fatiha bu sel ida jaa nasrullahi juróom ñaari yoon wa fil qamhi wa durrati barakatun ala kulli xaal euh, mboq dugub daal barke bu rëy mi ngi ci biiram mbokk yi nañ ci bàyyi xel euh, kii nag nee na dafa jékki-jékki rek fas wi di dem te mënatu ko téye fas buy dem ni yoonam mënoo koo téye nga jéem jéem mu të tu addi ila soo ittafahum bayna rajulin wa imraatin aw bayna imraa wa imraa aw bayna rajul wa rajuli fas buy jékki-jékki di dem yoonam rek kenn mënu ko téye day indi ñàkk déggoo diggante góor ak jigéen wala diggante jigéen ak jigéen maa fi dalika xeyr kii mbokk yi nee na dafa gént euh, ñu koy takk te moom mi ngi ci sey naqar lay indi aqdu nikaax marratayni wa huwa fi daaxili zawaaj maa fi dalika xayr gént nekk ci sëy ñu lay takkaat baaxul naqar la lay jural walla jafe-jafe bu tar euh, beneen bi nee gis na gileem ci kaw asamaan si euh, gileem ci kaw asamaan ba leer gi di jolli bay dal ci biir néegam fa taajabat bi zalik mbokk yi gileem gi tekkiwul gileem lay tekki leer gi nag isharatun ala shay'in ma gis nga gileem ci kaw asamaan buy génne leer ba mu dal sa biir néeg yàlla mën na la may nga am doom joo xam ne ji isa kabira wa balaga xata asbaxa fi maydaanil xayaat yumkinu an yakuna cheikhan aw rajulan mashhur fi xayaatihi mbokk yi kii de yàlla mën na ko may moo am doom joo xam ne ji dinañ ko dégg ci dara allahu alam fi ay shay'in ci mbar mbir lay doon waaye daal euh, mooy leer gi jóge ci asamaan daanu ci biir néegam nañ ci bàyyi xel muy lu am solo euh, beneen bi ci tegu kii ne dafa gént euh, Sëriñ Saalih Mbàkke rahmatullahi alayhi ru'yatul awliyaa wa saalihin qulna zalika miraran ida raayta waliyan min awliyaa illah aw saalixan min alsaalihin fa dalika xayrun wa fatxun wa yusrun wa taqaddumun gis nitu yàlla ku mel ni sëñ saalix mbàkke qadaa u xaajatin mi ngi ci aaju gu fajoo ngi ci ci zahir ak ci baatin wala kunta fi diqin shadid doo nekkoon ci xat-xat di nga ci génn walaw kunta maridan boo feebaroon di nga tane walaw kunta fi mashakilin mutaaddida soo nekkoon ci ay jafe-jafe yu métti it yàlla dina la ci génne ndax li ruyati saalihin wal awliyaay bi ci gën a neex ci moom nag nee na gis na mu jox ko mandarin nitu yàlla bu la joxee dara ci ñam jàppal ne at moomu sa at lay doon yàlla mën na la ubbil yumkinu ko an tajida futuhaat la tusa bi ci gën a baaxati encore albukaaw kaane yabki indama raa cheikh mu gisee sëñ saalix mbakke da ci doon jooy jooy yi metti albukaau faraxun wa sururun fi xayaati l insaan jooy guddi mbégte la am na solo mbokk yi ñu bàyyi ci xel Eh, beneen bi ci tegu mbokk mi neen dafa gént mm, borom këram boo xam ne bi raxala ila jiwaari rabbihi munzu qadimi zaman génn na àdduna bu yàgg dina ko nee na mu gis ko imma ak it gis na ay dàllu carax wala boog ay dàllu yu réer borom kër bu génn àdduna hunaaka amrayni muxtalifayni ñaari mbir yu wuute da ci am bu njëkk bi mooy ki nga xam ne ki génn na àdduna te wa huwa fi qaydil xayaat lam yamut baadu ay lam yarxul baadu ila jiwaari rabbihi ki nga xam ne kii daf ñu ne dee te mi ngi dund gudd fan la koy jural aaju gu faju la koy jural su fekkente ne raxala nag ila jiwaari rabbihi génn na àdduna eh, nga gis ko maratan saaniya fil xulmi nga gis ko ci gént dafay wane ne Euh, taraka waraahu asiya am na yu mu bàyyi ginnaaw yu mu bëgg ñu bàyyil ko xel bu baax amaa nag dàllu bi réer moom wax dëgg yàlla mm, maa fi zalika xayrun baaxul xat-xat la su ñu nee xat-xat dañuy tënk rek ndax al isharatu takfi liman aqala junju doy na borom xel waxoon nañ leen ni nag al xolmu yaati ila salasati aqsaam gént ñetti xaaj la almaadi walxaadiru walmustaqbal li weesu mu am lu ciy ñëwaat sa dund yàlla woon la ko ak li ngay dund te jeexagoo jeexagul ak li ñëw ak akseegul ida kaana fiihi xayran yàlla misaal la ko wa in kaana fiihi charran kadalika euh, su ci amee it ay tolof tolof yàlla woon la ko euh, fi lmustaqbal wa fi lxaadiri hakada euh, nañ ci bàyyi xel nañu bàyyi xel nit ba tey nit du programmer gént gént kenn mënu ko programmer kullama raayta fil xolmi lépp lu la yàlla woon rek jàppal ne dara la sawa an allahu alam xam nga ko wala xamaloo ko boo xamul nag fas alu ahla dikri in kuntum la taalamuun dañ leen laaj yi nga xam ne ñi ñoo leen di ëpp ci expérience mbir mi ñu teg leen ci yoon waaye nañ ci bàyyi xel bu baax Eh, kii nee ne dafa gént di dem Touba mu yéeg oto mbaar yéeg oto di dem su fekkente ne yow kenn yaa ci nekk baax na soo ko bokkee ak ay nit nag eh, loo sëmb du gaaw loo séentu mu yéex nañ ci bàyyi xel beneen bi ci tegu kii neen dafa gént ay tani tani nag moom baaxul mbokk tani moom baaxul soo nekkoon ci jàmm nga nekkoon ci ubbeeku xëy gis tani jàppal ne sooxe sooxe mi ngi ñëw boo nekkoon kas euh, zu maalin kasirin borom alal nga jékki-jékki gis tani ci gént jàppal ne yaa ngi ñëw xat-xat yaa ngi ñëw ak lu alal ja bari bari daf ci am yoo xam ne yi boo dee borom alal di ko gis boo moytu di nga am yàqu-yàqu ci sa alal tani ci la bokk jiit al aqrab ci la bokk jiit gént ko boo dee borom alal ba moytu rek xat-xat yaa ngi ñëw ci sa dund wala boog nga am yàqu-yàqu ci sa alal nañ ci bàyyi xel bu baax muy lu jara bàyyi xel euh, bi nga xam ne ni rek moo ci teg muy ñetti ñetteel bi ñu fexe nit ñi xam ko bu baax mooy kàkkatar kaka di ko gént ci borom alal day wàññi sa alal wala mu indi yàqu-yàqu ci sa biir alal in kunta min zawil amwal bu fekkente ne eh, ci borom alal yi nga bokk wa ba bokkul ci al mën na la indil bunt yu teju moom haadayn al amrayni waaw ñaari mbir yooyu ngeen bàyyi ko xel muy kàkataar ak tani ak jiit nañ ci bàyyi xel kon mbokk yi mi ngi noonu dañuy bàyyi xel rek liñ fi waxoon léegi ki neen dafa gént nekk ci biir jàkka mu gis soxnaam euh, boo xam ne dafa génnoon àdduna mu ci jooy dafay laaj rek nga génneel ko sarax su ngeen amatee soxna mu génn àdduna ngeen di ko gént ci bari aana day leen ko defal nàkk dugub 41 ngeen boolu ci 41 qul huwallahu ahad fa takunu hadihi sadaqa euh, sadaqatan wasila muttasila ilayha ila allati raxalat ila jiwaari rabbiha nañ ci bàyyi xel mbokk yi kii neen dafa gént waajuram wu jigéen génn te moom mi ngi dund sa waajuru jigéen bu génne àdduna te mi ngi dund rek dina fi yàgg lool te wér eh, beneen bi ci tegu kii naan soxna soxnaay waajuram wu góor la gént mu gaañu te gaañu woon na mu mel ni dañ koy dencaat loolu li muy tegtale mooy njaboot gi mu bàyyi ginnaaw am na ay xat-xat ci biir wala am na ay tolof-tolof wala ñàkk déggoo wala mu bàyyi woon fii lu mu bëggoon ñu taxawal ko ci ginnaawam ñu xaw ko woyofal lool euh, mbokk yi nañ ci bàyyi xel bu baax euh, loolu mooy tekki ki nga xam ne kii génn na ñu gisee ko noonu bi nga xam ne moo ci mujj nag mooy bi nga xam ne bii kii ne dafa génte ay jën yu bari euh, jën yu bari bu fekkente ne yu ndaw la baax na su rëyee ba ëpp nag baaxul jën bu rëb rëy ba ëpp ba dépassé dimension jën normal baaxul amaa nag fóot loo am du toog sa loxo doo ñàkk ba jaaxle waaye doo bari la it ala kulli xaal mooy gént di fóot te loo amit nu muy ñëwee noonu lay génnaate say loxo mooy gént di fóot ay yére mbokk yi ñu bàyyi ci xel dañu jégalu lool nag xat-xataayu waxtu wi ndax waxtu waa ngi dab incha allahu ñu ciy jéggulu mbokk yi nga xam ne ñi dañuy ànd ak ñun saa ne dañuy teewlu ci waxtu wi eh, ñu ziyaara ñi nga xam ne ñi dañuy bàyyi xel eh, di ànd ak ñun saa su eh, ñu ngi ziyaara mbokk yi nga xam ne saa ne ci bitim réew ci Sénégal dañuy topp di bàyyi xel émission bi wa ala kulli xaal ñu ngi ziyaara Adja Sali Sem groupe les sœurs unis ay waa groupe Fadilat ñu ngi leen di ziara ba Adja Ndënku Sem Parcelles Assainies unité 4 Jibi Sow euh, PK9 Major Jibi Sow ci marché Dior Abdourahmane ko ñu ngi koy ziara ak soxnaam Mariam di ziara ci garage Mali bu Mauritanie Mariam Balas ñu ngi koy ziara bu baax euh, di ziara it euh, borom këram Euh, Abdourahmane Dicko ñu ngi koy ziara di ziara euh, ajaratu Marème Balas euh, di ziara Alassane balaas di borom këram maam Aïda Ly ñu ngi koy ziara ci cinquième Concorde cinquième Nouakchott Moussa Salisem ñu ngi koy ziara bu xam Mouhamadou ñu ngi koy ziara bu baax moom it Tàkku Cissé Pape Mola Diop Asegna Mariam Seck Aynu Talh Bokarloo ci Mauritanie ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara jibi ñoom ñom jibi wàdd fàttewuñ leen ñoom ñëpp di leen nemmeeku euh, di ziara it aja jëliya sall aja soxna ba aja euh, mati ba aja alaji malik ba alaji souleyman adama ndiaye ñu ngi koy ziara xaaji adama ndiaye ajaratu ndiku faal mansour sarr ñu ngi koy ziara maam lisul mahamadou mbay mi dina may mu jibu lay moo di ndiaye ñu ngi koy ziara docteur Pouy di médecin chef ci Dantec ak borom këram dëkk madame Pouy ñoom ñëpp fàttewuñ leen Bintu Ñang Bachir Ba ci Mauritanie ak soxna soxnaam Thiané Diagne Abdourahmane Mbacké ñu ngi koy ziara Serigne Massamba ñu ngi koy ziara Rose ci France Elisabeth saña ak monsieur Sagna ñu ngi leen di ziara Mouhamadou Moustapha Yaali ak fan euh, Aysatu Saw ñu ngi koy ziara ak Moustapha Saw ñu ngi leen di ziara Rokhyatou Diop soxna Mati Diaw cité des magistrats Mouhamadou Moustapha yàlla xaaji ma jaañ Guèye ñu ngi koy ziyaara bu baax euh, di ziyaara it euh, Salima Sam Nouakchott di ko ziyaara Khadim Norvège Soumaré ambassadeur nekk ci Mali ñu ngi koy ziyaara ak madame Soumaré ak groupe am groupe madame Soumaré ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaara di ziyaara Alaaji Yaaya Sarr ci France di ko nemee ko bu baax Cheikh Bara Fadilou Mbacké ci ñu ngi koy ziyaara ak soxnaam soxna Fatou Silla ak doomam Awa Mbakke Fanta Jaxabi yu malaam ñoom ñëpp ci Sococim ñoom ñëpp Babacar Éméré it Adja Yaay Moussa ci ci Mbour Nancy Aydara Alhaji Pape Gallo Badiane Alhaji Ngagne di maire Bambilor ñu ngi koy ziara Adja Ndey ba ca Dakar ak borom këram Cheikh na Soumaré Awa Diaw Abbas Gadiaga Aline Nia ñu ngi leen di ziara ci asalem Barieli waaye di ziara Adja Khady Thiam Seck nekk ministère de sport moom it ñu ngi koy ziara bu baax euh, du fàttewuñu kenn mbokk yi di leen nemmeeku di ziara ñëpp Sénégal nag yàlla fi yàlla def jàmm mbokk yi feebar bi yàlla na ko fi yàlla jële mbokk yi feebar bi yàlla na ko fi yàlla jëlee mbokk yi feebar bi yàlla na ko fi yàlla jëlee allahuma rabbi alsamai wal ard wannuuri walzulmati walzilli walxaruur allahuma rabbi axrijna min hada almarad wa axrijna min altaabi walmashaqati waldiqi shadid allahuma axrijna min almarad wa axrijna min altaabi walmashaqati waldiqi shadid ya ya rabbi ya ilahi axrijna min hada almarad wa min altaabi walmashaqati waldiqi shadid wala tuxayib rajaana minka ya rab allahuma innana maddadna aydina ilayk fala taruddu yada albas waraja minka ya rab ya rabbi la turuddu yada albas waraja minka ya rab innaka ya ilahi ala kulli cheyin qadir allahuma allahuma rabbi la tuxayib rajai ورجاءنا ورجاءهم ورجاء جميع المسلمين وصل على نبيك وحبيبك ورسولك صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها باب الشر والتعسير وتقضي لنا بها جميع الحوائج وتكون لنا بها وليا في الدنيا والآخرة يا رب يا إلهي أنت ولينا اللهم أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima allahumma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima ughliq والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك ربي ربنا wa rabbukum rabbu kulli shay'in rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin